Euh, yeneen i kàddu nag euh, yu jibee ci Alioune Sow am na nag lu mu wax euh, sénégalais yi du ñu def rek lu dul bàyyi moo du mu tegal ñu li leen ñu dellu si. exactement loolu am na programme non bu dee kii nga wax na parce que man maa ngi suivre te damay bind chaque jour. Mm. te dama leen di suivre ñoom ñëpp il n'y a pas de programme tu sais pourquoi il n'y a pas de programme. Mm. parce que ils n'ont pas besoin de programme. et tu sais pourquoi ils n'ont pas besoin de programme parce que ils ont en face d'eux des sénégalais crétins qui n'y comprennent que dalle et que li leen intéressé mooy diw lu ñu am yaakaar point. mais mais Aliou il faut. booy na ma ko euh, non non non non il a dit des sénégalais crétins. non le mot là c'est un non il doit respecter. Euh, il retire son propos. non bu doon non bu doon mën maa ko par exemple. c'est pas parce que ay nit ànduñu ak yow wala ànduñu ak diw nga Cheikh loolu du wax ah, wax boobu wax boobu je répète des sénégalais crétins ñu bari ñoo xam ne li leen intéressé li leen intéressé xam nga mooy lan du dara lu dul am yaakaar kese ci nit ki waaye xamuñu luy programme xamuñu ko waaw olof Ndiaye de daana wax ne màkk boo fay dem sax yaakaaral la fa yóbbu alaaji eh, kàddu yi la eh, Aliou Sow yëkkati eh, nee na nag gars yi depuis ñu toog ba tey ak li ñu fi wax yëpp ak effort yi ñuy def yëpp programme amu fi sénégalais yi leen topp daal ak lam ca teg peut-être yow am nga gis-gis bu nga xam ne nii par rapport ak kàddu Aliou yi. moo ko moom moom mooy euh, moom mooy <laughs> parce que sénégalais la <laughs> te defe naa ni li mu wax noonu moom ci moom la ne ah. waaw parce que nit ku mën a ñëw adressé ab xeet wax leen yenn mots mm. loolu moom nga mais nee na ñenn ci sénégalais après defaraan na wax mais moom la rek <laughs> moom la rek parce que le fait que nga mën a toog ci plateau parce que nit koo xam ni ku normal la buy adressé yenn kàddu yi sénégalais yi dina wax mën nga wax sa dëgg ba pare. Mm-hmm. say gis-gis sans pour autant que nga. rek sa ñenn ñi. def ñenn def lenn ñenn ñi quoi boo demee ba mënatoo loolu rek. Mm-hmm. loolu ngay génne yow waaye du keneen. loolu mooy li nga xam ni moom laa koy njëkk wax ci mbir moom euh, xam nga programme euh, nit ki. da nga war a njëkk a wax ne lan moo tax sénégalais yi am ci nit ki yaakaar loolu nga war a njëkk a teg ci taabal ji pour mën a xam lan moo tax sénégalais yi dalde xool ñenn ne ñii lañ am ci ñoom yaakaar foofu ñaar ñooy ñëw bi ci njëkk mooy discours boo xamante ni bi nit ki wax na la ko nga suivre ko mu lay wax ay discours yoo xamante ni bi yu cohérent la ñaareel bi mooy parcours mooy ki lay wax wax ji luy jaar jaaram sénégalais yi nag intéressé déglu nañ waaye tamit laaj nañ kiy wax kii mooy kan diirëb mu dugg ci politique ba nëga ni nit ñi déglu nañ ko waaye tamit déglu nañ ñi ko xam ñi ko xamoon ci jamono joo xamante ni bi jógutoon ngir politique mais ñi ko xamoon def ci moom ay témoignages yoo xamante ni tey jàpp naa ni ñu bari tey bu ñu leen doon natt ci lu mel noonu lu ci mel ni alal danañ tàbbi ci pax mi ba bi mu ñuy joxoon ñitit waxuñu nit ki lii la wala lii waaye daf ko indi ci njub Sénégal benn problème la am xalaat yi bari nañ li ñu war a def kii waaye ñu jub ñu ko doxal lañ ñu amul. c'est que Aliou loolu la xamut ñi fi yoroon programme ba dem bindulu ay programme lan lañ fi def maanaam teg yàgg nañ ñoo tegal programme bu bu bu teg nañ ko fi. waaye defuñu fi dara. est du loolu la jàpp ni moo fi nar nekk di. wër loolu nag. Euh, ñi ko daan def ak ñi bokkuñu. te xam nga li gën a doy waar mooy nit ñi ñëw présenté la programme wax la li ñu bëgg a def fii ak cinq fii ak fukki at ak ñaar fukki at ak juróom ñu wax la niñ ko war a defee wan la ne la huit pôle la fu ca ne premier ministre def campagne bu demee wax fii. liñ fi war a def nan lañ ko war a defee mhm. ngay suivre président de la république di génn di doxal ay mbir nga koy gis di ci teg sa bët nga mën a ñëw jàkkaarlook askan wi am doye dik naan ñii amuñu programme kon est-ce que xam nga programme xam mm, tamit aussi tam programme tamit du question que ni dañ naan diw amu ko waaye ndax moom xam na lan mooy programme ah, moom Alioune Sall nee na mi ngi leen di topp tous les jours moom day bind yore journalam xam na li xew mm-hmm. ah alaaji kay day bind wala day bindal <laughs> ah parce que bind leen bind may bindalaate tamit leneen la ah, la ciy nekk ak loolu mais c'est que tey bu fekkente ne bi tey moom lii ñuy wax nii yëpp tey mm-hmm. yow gis nga ko mm-hmm. programme la wala du programme. ah programme loolu kay sénégalais yëpp teg nañ seen bët nag. waaw mais moom lu tax moom mi nga xamante ni nee na moom moo ñuy yëgal moom mi am journal mu ne am na journal di yëgle. Hmm. yëgut li ñu gis ba noppi nag mu bëgg a wax ne moo ñuy yëgal mu bëgg taxaw ne xam nga am na sax ñeneen ñoo xam ne ñu ngi salteen nee nañ euh, am na programme waaye PSE la. copier dañoo copier. xam nga ñooñu waxatuñ ni amut programme ñenn ñi ne ñii ñun ñoo ko moomoon sunu programme la woon kon donc léegi nangu na moom fi mu toll moom Aliou fi mu toll nit ñi dañoo dépassé fii nit ñi dépassé nañ amul programme amuñu programme nit ñi kay léegi dañ naan am na waaye lii la mm-hmm. loolu la ñuy wax mais moom mi ngi ci amuñu programme moo lay war ne la Aliou Sow euh, demut nag Aliou Sow nag bi mu ñëwee Sénégal dafa am lu mu xam dafa ne Sénégal dëkk la boo xamante ni bii soxlawut xam-xam di bari. Hmm. Euh, baril coow moo tax Aliou daf ci coow la mise boo déglu Aliou Sow buy débat coow lay mise quoi maanaam déggal tubaab bari coow c'est Sénégal nag loola de il faut nga am mi ñu rëy yaa ngi dégg ba noppi di làkk tubaab. mais alaaji loolu jóge nañ ci loolu de. waaw mais foofu la Sénégal nekk xam nga Sénégal dafa am dafa maanaam yëf yi dafa soppeeku ci diir bu gàtt la soppeeku. est-ce que yëg na ko. waaw loolu la yëgut maanaam Aliou Sow bi mu yenoo ay bagages am jóge France ñëw daf ne Sénégal il faut nga am. <laughs> làmmiñ wu rëy dégg tubaab mu ñëwee loolu la imposé comprendre nga. Mm-hmm. dans un am na nu ko doon doxalee yaa ngi dégg. Mm-hmm. làmmiñ wu rëy dégg tubaab. yaa ngi dégg. waaw merci léegi nag bi mu ximmilikoo ba gis ni nit ñi nekkuñu foofu mu ne. Mm-hmm. ndekete nit ñi de décomplexé nañ faaleetuñu. yenn yi dégg tubaab ah, ay ndongoy daara ñoom ñooy ne ci plateau yi di wax li nit ñi mën a dégg. comprendre nga. Mm-hmm. ay comédien di wax lu nit ñi mën a dégg. léegi nag moo tax fi mu toll nii tey euh, bi muy wax crétin euh, <laughs> man mii lay wax. <laughs> ay ji nag tudd la nag baal jàmbur <laughs> bi. abal ma ko tuuti rek. <laughs> ay Aliou da dégg sa tur. xam man lay waxal. léegi lu tax nga wax ne yow lay wax dama xam ni parce que dafa jàpp ni ñun. li ñu gis ci euh, euh, Pastef li ñu gis ci moom ñoom. Mm. yaa ngi dégg ba nanguwuñu gis leneen lu dul lii. Mm. yaa ngi dégg. Mm. ay chrétien la. ah mais alaaji kon nag il faut ñu yee. dóor ay soo pour tey kaay ma la par exemple ñu natt ko ci beneen angle. lu tax ñii am na yeneen xam nga am na am na yeneen avantage à côté de yoo xamante ni bi am na yoo xamante ni bi jàppal ci yëf yi nga bañ loolu par exemple mën nañ la adressé que ni yaa ngi dégg c'est parce que gis nañ ni bay kii nan moo tax muy bañ ji kii dafa dof comprendre nga c'est que yooyu aussi tamit parfois day am yaa ngi dégg. non parce que pare yenn saa yi Aliou Sow ah. genre nit ñooñu nga xam ne ñoom nu ñu fexee nu ñu ci génnee mais dafa am ñoo xamante ne dañoo bëgg réew mi génn ci pas yow nga génn. yow nga génn loolu mooy problème bi. Aliou Aliou Sow bu la déggee na la yóbbu si yoon ndax nee na waxu tudd turu saa njóogu ba tey El Hadj tooñ tooñ baaxul.